ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indil na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mu génne te xew ci jamono tablette Core T4 smartphone Core x ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yi ñuy ànd ak yéen fu ne ngeen di ci liggéey lu leen neex mel ni ku toog ci seen bureau Core T4 Core x ak chaque X3 ak ñoo dëgër te méngoog jamono te dañ leen a mandargale ci norme militaire bii di ip boole ci dañu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gii leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a kok ñun ci suñuy boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorer votre quotidien. xam-xam kenn ëppuma ci wilaaye kenn ëppuma ci mbooloo waaw wala fax wala fax loo xam ni boo koy yoree da ngay nëbbu ba dof li ma waxoon ci yonent bi rek yooyu yëpp di yëngu te buy dox ci suuf nga defe ne moom ñëpp a yem waaw moo tax xam sa bopp rek moo am solo loolu moo tax sama rakk bopp bu baax bile bi ñuy génne léegi di ñëw mu ni ma kataba allahu la aglibanna ana wa rusuli mu ni yàlla boole ñu ca rek moo am solo ma defe ni kon nag mën nañu bañ gudd sax te jaayu amu fi waaye itam dafa am lu garaaw ngeen di ma baal yenn kàddu yi nga am na yu nga xam ni pour mu leer dafay tax nit ñi mën a xam yenn jëfandiku yi lan moo nekk ci suuf Sëriñ Mbay Si suur bii dafa dem dëkk bu nga wax Palmarin fii ci Mbuur am fa jibarkat bu fa nekk mu jël xaalis bu bare bu bare jox ko ni ko xam nga lu ma bëgg mu ni ko am ah, mu ni ko benn doomu sëriñ Babacar bu ci kaw suuf benn sëtu mu taxawati ci kaw suuf ci moment boobu ci la Pape Malick ñu pare nag ni ci man jëm si ndax lu ne xam cosaan bi dafay baax mais xam nga lu ci am solo mbokk a ngi toog fii bu ñuy wax abu Bakr Dia di doomu góor gi usmaan Dia moo daan ànd ak Chérif Tahir moo gis maam Habib Sy benn rakku maam El Hadji Abdou Aziz Sy maam Habib wax ko moom Abou Bakr ni ko waxal Moustapha ni ko bu mu tiit bu mu ragal ni ko ndax mag ñi kenn toogatul ndax yàlla ak moom mu ni ko te boo demee nga wax ko ni ko dese na mi at ci tundam ma defe ni kan nag ku yàkkamti demal ca bàmmeel ya xaar du dëgg waxin la rek c'est l'éternelle répétition de l'histoire inna nahnu natarabbasu bihi raybal manuun góor gee ko nettali ñi daan dem ba duñu ubbi seen cantine di jaay ñu ni leen lu tax ñu ni fekk yonent bi du dund rek dootuñu tal dara na fi jóge rek waaw loolu du fi jóg bu ko defee kon nag ndeysaan fatan aasha mahmudan wa mata muhammadan fa aatayta lil aishi qadran wa lil mawti miqdaaran azima waaw ndeysaan ah. waaw ay ca bismillah ndeysaan mhm. waaw waaw waaw waaw